yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi jërë ngeen jëf euh, nañ ko baaxoo ànd ak yéen rek góor baax na jigéen baax na ñu ngi ak jigéen ñu sell yi nga xam ñoo euh, bokk ci kuréel bi nga xamante ni moo ŋànk moo lëkkale li nga xam moo di commerçant yu Sénégal yëpp euh, seeni soxna ñoo ñëw fii tey euh, bokk ak euh, ñun waxtaan déglu waxtaan wi bokk ñun itam ndogondo gis fi lu am solo. loo xamante ni war nañ ko wax ci doxalin bu am solo bi nga xam daara mu xadamatul xit mu ngi koy doxal woo leen fi tey boole leen ci te xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou ay taalibeem yëpp Euh, muy góor ñi muy jigéen ñi lu baax luñ gis rek dañ koy xeñtu ji wute ko fekkee ko fa nga xam ne fa la nekk Soxna Astu yaakaar naa déglu nga waxtaan wi seet seet seetlu nga itam li nga xam ne ñoom moom nga jot a gis ci wàllu organisation ci wàllu li nga xamante ni moom la ñuy jox nit ñi ñen ñi am nañ ko waaye dañoo taamoo defee ko fii ndogoo fi ñen ñi xëj na am nañ ko waaye dañoo tumbaranke ndax ay étranger lañ wala ñu tukki woon yoon dab leen fi ñu ndog ndog fekk leen fi ñen ñi nag dañoo mel ni man xëj na seen tolluwaay melu noonu waaye ñu ñëw bëgg ko fee loolu lépp na ngeen seetlu ko fi am kaddu yoo bëgg a yëkkat bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illaa billahi aliyil azim bismillah laa ilaha illallah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seeni i tur seen sant soxna soxna Astou Dieng lañ koy wax mu bokk ci femme Aziz section Touba ñu taxawal Aziz bu Touba ci ndigalu sëñ Fallou Galas suñu président ak soxna Yacine Diop suñu présidente soxna Assou Gawane ja vice président soxna Assa Silla suñu maire soxna euh, Ndeye Fat ak soxna May Touré ñu ñëw teew si fii ci bis bi fa tubaarkalla macha allah gis fi tamit lu kawe suñu njort ndaxte mu Muxaddamatul ma Barigo ci mbartal la puus mu dem ñàkk puus mu dem ndaxte lii ñuy def nii ci ndigalu Serigne Touba. ki tax nga xam ne moo tax ñi di ko def muy Serigne Bamba teg na ci bëtam te dina ñu fay lu kawe suñ njort sëñ Fallou duñ ci soññ fuñ toll diñu fàttali fu toll ndax ab julli dañ koy fàttali ndax fàttali mooy jariñ képp koo xam ne yaa ngi ci def sa ñax defaloo ko ci kenn sa bopp rek nga ko fi defal bi ñëwee ba xool fii programme bi gis ko tamit ñu xam ne kull koo xamante ni ñëw nga Touba am loo ndoge wala nga ñàkk am loo ndoge soo agsee biir jumaa ji dinga fi ndogu fa tubaar fa xaajalewuñu seetuñu wàññiwuñu ñu ñëpp la ñu yemale ku ñëw rek da ngay daal di bokk. loolu kon mbirum Serigne Touba la ñu xam ne kon Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am noonu la yonent bi yàlla yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne at yi moo jaaxee waxu waxu marida na ngeen jox ñi xiif ñu lekk te ngeen dem di seeti ñu feebar ñi kon Moukhaddamatoul Khidma lii ngeen xamante ni moom ngeen di dox kenn taxul ngeen di ko def kudul kenn ki nga xamante nii mooy kenn muy borom Touba kon kenn munu leen a fay kudul borom Touba koo xamante nii woor na ba ngoon nga jox ko mu ndogu tiyaaba jooju nga xamante ni moom lañ koy def kawe na suñu njort pour ñu toog di ko wax xanaa dañ leen di bàyyi yàlla yàlla yonent bi yàlla lafal leen cat làq leen fu yàq yeggul àggale leen seen i yéene te lépp lu ngeen fi sonn suñu borom yàlla na leen ko fay bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf soxna si kaddu yi façon na boo xam-xame na taalibe na murite na te itam jaar na yoon te mën a sañ koo déglu bu baax a baax ñaan suñu borom subhanahu taala mu defal leen tawfeex ci daraje sëriñ bi ngeen yàgg ñu uh, jëf yàlla na kuréel bi itam gën a jëm ci kanam incha allah ba kawee njott bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulahi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi